PDS mhm. mën naa ne instant bi ci tur rek la existé. Mhm. non mais sérieusement PDS ci tur rek la existé. que de nom ah. mhm. la preuve PDS dafa nekk parti boo xamante ne bokkoon na parti yoo xamante ne bokkoon na ci parti yoon nguur gi yoo xamante ne bokk nekkoon nañ au pouvoir euh, Ablaye Wade gis nga taxawaay bu am solo bi nga xamante ne amaloon na ko pour man PDS ba fa Ablaye Wade jugee wala Ablaye Wade euh, toog jugee ci nguur gi at après wala ñaari at ci après. ci la PDS ndërmeelu parce que xam lan moo tax pour man dafa jot ñu comprendre que ni parti du benn nit boo xam ne moo koy moom def ko propriété privée ba nit ki bu fa nekkul rek parti bi du exister pour man li nga xamante ne la Pastef def war na joxe exemple parti yu bëri yi nga xamante ne ñoo doon exister bu yàgg depuis 1960 wala avant 1960 parce que dañu doon gis parti yoo xamante ne benn nit mooy ne man maay moom parti bi moo koy financé. bu wax jotee mooy wax bu dem jotee mooy wax bu représenté jotee mooy wax benn nit képp bu fa nekkul parti bi du exister te gis nañ ne loolu bokk na ci leen li daal li nga xamante ne mooy di parti bi di PDS la preuve 2019 dañu ne Karim Wade mooy seen candidat bu dul Karim du kenn Karim bokkul ñu boycotté ñoom tamit bokkul mille vingt 2024 également gis nga ko PDS bokkoon na ñu dem ba ci biir ay problème am finalement Karim mënut a bokk ñu ne Karim du bokk Karim boobu bokkul après PDS amul candidat et pour man loolu stratégie boobu nga xamante ne à chaque fois PDS da koy jël mooy li nga xamante ne moo indi ndërmeelu PDS bu loolu weesoo gis nga ne jamono ji PDS du bëri ñu nga xamante ne bokk nañ PDS génn nañ ca te am na ñoo xam ne sax sugu ñu ngi PDS. Mhm. mais mun naa ne bokkuñu nekkuñu PDS. parce que dañu dem ba découragé ci li nga xamante ne moo di parti boobu. Mhm. Abdoulaye Wade jamono ji mënatul lenn. Mhm. am na sax ay signature yoo xam ne moom ko ñu ngi si ñu ngi naan est-ce que authentiquement est-ce que ay signature Abdoulaye Wade la ka nga xamante ne lañ jàpp ne mooy numéro un PDS ba tey kenn mënu ko gis chaque jour wala chaque année ñu ne dina ñëw. chaque mois ñu ne Karim mi ngi ci yoon bi amaan na xam naa bañ na a nga ñëw ba léegi ku ci tey jii ku ci amoon jëkkër yaakaar naa am nga doom ba doom ja am bac ba soutenir ba def graduation ba pare dafay nekk ay mbir yoo xam te ne finalement yow di nga bokk ci parti bi de mais amatoo source de motivation boo xam ne war na la euh, pousser à ce que nga def loo xam ne parti bi dina ci mën a continuer et man fi mu ne nii vent bu bees la parti war a am ñoom ñi nga xamante ne ay parti yu yàgg la ñu existé nañu jël exemple ci parti bi di Pastef lu tax est-ce que tamit am ni parti bi lu ko rey du leader bu absent lu tax lu tax mooy la moom laa la wax ni parce mu yow mënoo nekk fa nga xamante ne nga nekk ne da ngay jiite njaboot gi mais njaboot gi tey jii sama genre gi Amina bu sama les souris dans tey ji amaana balaa mooy ñëw mën naa dëbb Dakar ba mokk su ma yëgee ne sama yaa nga ñëw ba dem toog kër ga lemu kan moo koy yëg wala kan moo koy mais nekk fi peut-être man sama ay ba su ma ko gisee li mu may tere yëpp dama ko def mais su ma wanee ginnaaw ma toog ci réew mi mais munoo di day dal wala ngay jiite parti boo xamante boobu nekk pour man en réalité parti boobu bu fekkente ne bëgg nga koo dundal mais du dund. parce que peut-être que nekkoon source de motivation bi gisuñu ko. Mm. dégg la am ci wala day photo wu yónnee leen ngeen statut après da ngeen dalal seen xel deux jours trois jours ngeen fàtte ko waat mais loolu doxalul parti nag Amina yaa xayti. parti day dem shooting yónnee leen ñu estati ay fan après ñu kiyaat. Abidou waay. la ñuy def. sugu ngi noonu instant yi daal coow mi ngi biir PDS ñu daal di cay dàkkee ñeenti responsable. coow loolu de je pense que benn côté ñoom la seen seen biir la ñoom la concerné en principe euh, mais xam nga euh, man au-delà jot coow li parce que xaw ma lu ko waral. binduñu aussi euh, peut-être wala waxuñu ci charte nangam lañ ko teg wala ci article nangam lañ ko teg mais man euh, je pense que parti politique yi war nañoo am beneen taxawaay biir Sénégal et que dama koy ñaan député yi peut-être di ñëw ñu am ay projet de loi yoo xam ne wala projet de loi boo xam ne dina mën a jooyantiwaat taxawaay parti politique yi parce que xam nga logigul wala c'est pas pertinent nga gis ab parti politique di dem élection di langaamu ci ay coalition rek wala di dem élection amuñu yenn représentativité yi bu ñu jëlee le cas de PDS waxatuñu waxi représentativité parce que am nañ base ba pare mais waxi lan la ñuy wax waxu absence est-ce que yenu na maanaa benn PDS boobu wàcc ci nguur gi en 2012 2012 ak léegi ñaari élection présidentielle tegu ci PDS bokk ci mu nekk benn parti boo xam ne dañ doon wax walla bokk ni ñu taxawee mooy que Karim mooy suñu plan A ba Z la El Hadj Malick waxoon papa ngañ ne ko yow yaa wax Sonko mooy seen plan A ba Z lu dox Diomaye mu ne ko Sonko mooy Diomaye une bon bonne campagne de communication ñii waxuñu ko mais noonu lañ taxawee xam nga mu nekk loo xam ne tey man jàpp naa ne am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci parti bi mérité nañu am yenn poste de responsabilité mérité nañu am yenn taxawaay ci politique bi mais malheureusement joxuñu leen chance léegi nag lan moo tax ma commencé ne yenn député yi war nañoo mën a sàkku projet de loi boo xam ne danañ xoolaat taxawaayu parti politique au Sénégal mooy que dafa am yenn gëm-gëm yoo xam ne am politique ñenn ñi gëmatuñ ko mu am yenn parti yoo xam ne ay parti fans club la mu am yenn parti yoo xam ne ay parti ma riirandoo la et que PDS li Ami Cissé di wax parfois parti has-been la pour man jàpp ni PDS dina amaat benn taxawaayu politique fii ci senegal courbe bi bu dee day def nii day gën a wàcc bu de courbe décroissante lay doon parce que dafa am noo xam ne dañ koo am beneen taxawaay politique fii ci Sénégal mu am ay principe yeneen yu ñuy gis ci politique ay gën gën yeneen yu ñu gis ci politique ma jàpp ni nag war nañoo xool nan la ñuy demee sax bay am ñaari parti rek au Sénégal parce que logique bii ni ñuy topp ah waxuma ni ñuy réclamer wu patriote dinañ jékki saay bàyyi man yaakaar naa ñi gëm dinañ gëm projet ba muy dem léeg li opposition yi def ñoom noonu rek peut-être la ñu war a xool nan la ñuy nekkee say ñu dem ba am peut-être li ñuy am ci yenn dëkk yi comme ay États-Unis les républicains côté bi les démocrates fii. say bi amul doon ñu dem waaw même bu amul ñu xool sax après di poser peut-être ñi bu ñu jógee fii ne ñun kat. patriotes yi doyatuñu nañ dem xool ñii nu leen di tuddee ñoom sax xamaguñu peut-être bu ñu doon def say boobu na la ñuy tuddee seen bopp ñu xool mais imaginons Ami Cissé parti fii parti fii parti fii parti fii parti fii parti ba kañ bu njëkk da nga doon dox dajeek ay militants PDS wala ay militants parti nangam mais am na ñoo xam ne dañuy ànd ak parti bu nekk ci nguur rek. mais yow gis nga di nga di nga di nga pour nga romb gis kenn la waaye man de sama carte membre fële laa ko am wala di campagne wala di kii benn. doo ci gis ñaar doo ci gis ñett wala di nga toogaat deux semaines trois semaines gisaat ci qu'on se dise la vérité am na ñoo xam ne seen durée de vie. politique jeex na moo leen fa ba. mais nañ xoolaat nu ñuy restructurer yow yow yow yow defoo loolu xooloo yan méthode ngay indiwaat lu dul ngay dàq ah nañ dàq ñu xool ba ba pare ñi ñu dàq sax ñenn ñi ay ay mag lañ de. Euh, PDS ci tànku suux la nekk am déet loolu mooy. question suux na ba pare kay. Euh, bi ñuy laaj honorable ndaxte nag euh, ñiñ fay daal di dàkke mi ngi bëgg a bari euh, cette fois ci ñeenti responsable lañ